jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs ñu am mbégte ñu leen koy dégtalee bu émission face à Papale. Ah, nous ah, ñu am fi gan goo Sénégal yépp ku ràññee mu nekk kilifa ci réew mi nekk kilifa timit ci àddina bi ndaxte moom mooy jiite parlement bu président bu parlement bu Euh, mu di Moustapha Cissé selo nekk vice président à l' assemblée nationale ñu fas ne ko dalal ngir mu gindal nu parce que coow li bari na trop lu bari ñu ngi koy yëkkati di wax euh, jëmale ko ci moom moom tamit moom kàddu yoo xam ne da koy yëkkati di wax ci réew mi nu muy doxee ñu am mbégte euh, di ko fi dalal sëñ Moustapha maa ngi lay jox kàddu gi nga nuyu mbokku téléspectateurs yi. jërëjëf Baye Ale maa ngi lay nuyu di la ziare sunu ko lëre yàgg na xamante nañ bu baax a baax a te li nu xamante lépp ci dëgg la ak ci réew mi soxal ñu euh, may siyaare it euh, téléspectateurs yi nga xam ne ci àdduna bi ak ñi nga xam ne peut-être bu ngeen ko defee ci réseau sociaux yi site internet yi danañ ñu suivre mm-hmm. di leen siyaare di leen balu àq euh, ndax des fois xëy na ma wax loo xam ne du ngeen ko bëgg surtout ñi nga xam ne samay soppe lañu mbaa su may ñi nga xam ne gisewuñ ko noonu di wax leneen mm-hmm. mais seen groupe bi it aussi ma beral leen loxo siyaare leen ndax ni ngeen di gérer équilibre yi di may ñëpp ñu wax fi te ma am fi ay doom am fi ay xarit yoo xam ni comme Pape Birahim Touré ak ñi mu nekkal foofu laaj ci yem di siyaare Bougane moom tam suma rakk Euh, su ma wëllëre la boo xam ne bi jàmm la ñu seq junni bay bokk ay xarit kon maa ngi lay nuyu di la ziare. jërëjëf bu baax Moustapha lu tax ñu ne lu tax Moustapha Cissé Lo fan yi ñu gis ko mu tàng trop kàddu yi muy yëkkati assemblée nationale day tàng di wax ne réew mi dañ ko war a teg ci yoon lu tax loolu. waaw xam nga Pape Alé euh, nit ñi euh, li seen problème mooy dañ dul interroger histoire. Mhm. histoire buñ ko interroger. Eh, danañ xam ne Moustapha Cissé Lo xaarul ba nekk ci pouvoiru Macky Sall a tàng man dama judduwaale tàng dama ko donn ci samay maam bés bu ne ma wax ko kër Matar Mbaye Khoudia Gueye laa bokk ngeenu Matar Mbaye Khoudia Gueye deret ji ñu yor dafa tàng ma bokkaat ci ndaat Fall bokk ci ay guerrier maam Kumba Fall maam Bors Jaleen mhm. Amari Ngoone foofu laa bokk sama maam yu bari bari ci teen lañu faatu ak i bal deret jooju ñëw ma laal tuuti nag ci eh, ndaam ak Louga di sëtu Matar eh, sëñ Louga Birane Awa Sarr xam ne alxuraan ñoo ko indi ci réew mi eh, bi loolu doo nekkee it xam naa suma temperament moo tax bi ma nekkee ci administration ONCAD ma nekk ci ñu may yilif daawuma jubook samay kilifa jàppante naa ñoom ba tey ndax bu ma gisee lu ma d'accordul rek damay fippu bañ loolu moo waral loolu nga wax ma président Macky Sall ndax boo interroger histoire bi de toj assemblée fin 2007 2008 ba Ablaye Wade di ma dàq tey ñi may saaga feeñu ñu woon Mbaye Ndiaye laa ci mhm. ma ci keneen man maa combat Ablaye mu injustement. dégg naa sax seen benn collègue mu ne dañ maa fay. waaw na waaw loolu. danañ ci dikk waaye dama bëgg def rek jeunesse bi beneen bi am solo mooy Macky Sall bi ñu ko tuumaalee moo gënoon metti mhm. yow yaa ko couvrir police centrale. maa nekkoon ci kanam ak sama jabar ak samay doom ak Mbaye Ndiaye Badara Cissé ñoom mais ñuy coow di wax naan wéy Moustapha Cissé loo demoon na bay dem ak demul ak yooyu mais ñun kenn xamu leen woon man suma leen a xam ci APR ak ci politique. je le dis très honnêtement wër Sénégal gep ak Macky Sall gis nga même cassette yi tay ji amna kuma envoyé ci Alaaji Baara bi ak Kaffrine 2010 bi démé ba auto yi panne maa même mécanicien bi donc yooyu faté de fi xajul kon buñu ñëwé xamné bonne gouvernance lañ doon prôné sobre et vertueuse nu dem ba ci biir xeyna Macky Sall loolu la bëgg mais troupe yi mënu leen a canaliser ba am ño xam dañuy profito ci xex buma xexone te bi may xeex nekkuñu fi di fab alal ji di pasar pasare di yàq di duma ñi sosaloon Macky àndoon ak Macky Sall sos parti bi sama tension day dem quatre-vingt-dix degre ma gisaat sama bopp dellu ci démb malgré li may nekk vice président. mais lu tax ngay attaqué Macky Sall kon. déet Macky lu ma ko wax ma benn wax bu ma ko wax boo xam ne war na ko déranger eh, wax ma ko ndax doone Macky Sall akate ma parce que. aw ma ñu dégg naa ñu ne danga ne kenn xàmmeetu ko. mais atti loolu du xam nga Pape Ali yow boo dee suma xarit wan ma cofeel par exemple ni nu bu buñ gisantee kafante rente bokk naan ataaya bokk naan kafe ba mu yàgg nga tëj sa portable ci man tëj sa bunt ci man waxook man buñ ma laajee dama naan xàmmeetuma ko ndax kooku sama xarit la. loolu la doxalee ak yow. waaw ak ñeneen man mii noonu la doxalee ak man noonu la doxee keneen. recevoir la audience def dara ma sax audience peut-être ci niñ koy waxee ndax tooguma fi mais dañu war a am contact direct dama ko amoon ak moom amoon numéro boo xam ne dama ko ci joxe message muy tontu bu ma ko soxlaa gis ko mais bu ma demee ba mën a toog trois mois du ma gis président du ko dégg du ma xam ci moom dara du jéem a xam bu déggee ne sax Moustapha Cissé Lo wax na nangam du ma woo ne ma Cissé bul wax nangam sañ na ko wala kaay ñu wax lu tax nga wax nàngam mais damay xam damay jàpp ne dafa am lu ma jàppal bu boobaa bu ma ko mënta gis nag dama koy envoyé lépp rek ci biir rajo beeg télé beeg fépp rek fu mu ko mën a déggee baax na. lan ma war a indi loolu ci moom. xaw ma ko loolu nag laa koy laaj loolu maa ngi la ma bàyyi ale mënu ma ci tontu ndax gisuma ko man trois mois yi gisuma mag Sall bu ma ko gisee ci tele laa ko gis mais nag dama defe ne loolu warul mën a ne koo xam ne ñoo doon bokk di fanaan ci di daw ba bët set li ma wax di lekk sandwich yoo xam ne ñaari day nëb sax dañ koy sànni. ak i pom ndax togg duñ ko gis sama jigéen Marème fay moo nu ko yónnee ñu lekk ca leen la bu amee ke day mujj yàqu dañ koy sànni ndax coono buñ def ci àll bi ndax yéene woon mu falu yaakaar ne moom moo gën ci réew mi loolu moo ñu ci dugal léegi nag bu demee ba mu falu ànd ak ñoo xam ne ñi ñoo ko doon saaga jox leen post yi gën a baax mhm. jox leen ndaataa talax yi bu ñuy mayee may leen bu ñuy sarax sarax leen ñun duñ ñu sarax duñ ñu may mais kon dañu dañu naan d'accorduñ ci loolu. mais yaa yaa ngi yaa ngi xas transhumant yi na leen di leen beral loxo mais yaa xam mbay wax na ne yow transhumant bu mag nga déggoo nga PS dem PDS ñëw APR. mais dama ko assumer pleinement bu dee transhumant mooy nga bàyyi ab parti. gisatu beneen parti waaw gisoo ci sa bopp kon transhumant la. mais man bi ma transhumé gêné wu ma ñi ma fa fekkoon. parti socialiste dañoo dem ba mu am problème man fa ma dëkk mënumaa opposé ma dem ba ci Ousmane Tanor Dieng yàlla nañ ko yalla fayal ma waxtaan ak moom ni ko damay bàyyi ndax Touba ma ne su faa opposé damay ànd ak Ablaye Wade ndax Ablaye Wade ñoo bokk Serigne Saliou xeex na li mu xeex du ma toog di ko gêner mais bi ma ñëwee neewuma leen nañ ma jiital ba ma ñëwee sëñ Bara Dolé noon président fédération bi bul ko fàtte mhm section lañ ma jox numéro 1 mooy secrétaire général bi Fallou Mbacké nekk secrétaire général bu fédération ndax moom la fa fekkoon ma nekk secrétaire général adjoint liggéeyal leen liggéey bu rafet ñu fal ma falaat ma booba ay PDS nga mais maa leen ëpp valeur ndax xam nañ ne ki gagné chambre de commerce te gagné wu ko ci politique gagné woon xeex 98 ba nekk député titulaire ci ñaar maag Ibba Guèye mhm. kooku am na mbooloo mu mu topp ginnaawam loolu laa def léegi bi ma ko defee benen bi nga wax ndax Ablaye Wade moom daf ma dàq xam nga bàyyiwuma ko bi yoree pouvoir te naruma ko woon a bàyyi yëpp loolu mooy gi mais Macky Sall amal problème muy doomam ñu nekk ci xex ma gis ne c'était injuste Macky Sall deful dara. toñul y avait Karim wad ak groupe pour liñu doon wax. li ñu dévolution monarchie dévolution monarchie bi ma bañ. mu dàq ma te bàyyiwuma ko daf ma dàq ndax Ablaye wad daf ma jitté teraanga moom itam wax nako moo ma njëkk a may vingt million di ma joxit màggal gu ne cinq million ak cinq tonnes ceeb awa géey kebe la ma boole loon ba mu yàgg Pape Diop menn maire xam na li ma wax mu ne ko dee ci teg cinq mooy dix tonnes ku mënul dara danañ la jox loolu loolu laa nekk moom ba amee problème jéemoon na ma bañ a dem mais erreur bi war a corriger rek dama dégg ko toog wax ci benn rajo ni moom fekke na bi ñuy waxul dëgg bare bon nga woo ay Sylla wala Babacar Gaye Aïdara Sylla ma jël si ni ma wuyul Ablaye Wade booba Macky Sall sax créé gul parti booba moo yor président assemblée nationale bi mu ñëwee mu bëgg ma convaincre pour ñu xeex euh, euh, Macky Sall ma ne ko duma ko def ba muy dem ma ni ma Macky Sall na ñëw jox ma sama man ma ko wax Macky Sall. wadd moo la wax ne neel Macky mm-hmm. Sall muy. na ma jox sama yëf lii kay mën nga ko laaj ko ma effectivement ndax dani bi ma mangi yengal ngi yëngal samay loxo Babacar Gaye moo ni kii xamul lu mu bëgg. maa ne ko bu ma xamul lu ma bëgg it du ma nangu li ngeen wax du ma xeex bi ma génnee ci bunt bureau Sissoko du ma xeexi mag sal ndax deful dara mais booba parti amul ba ma naan na dam na Ablaye Wade nee na duma ko jox deux cent millions maa ngi Ablaye Wade mosu ñoo wax waxu xaalis loolu ay faux débat moo tax du ci tontu. Euh, gos bi ko wax na dem wax ak ñi mu war a wax ak du ma wax ak moom xam na li mu wax maa ngi moom tolloowuñu niveau boo xam ne. ba tey yaa xam ne ne doo membre fondateur euh, APR. waaw mais kooku it nag bàyyi àll bu mu bu mu yàq nag yow tam yow xam nga ne bi may xeexal Macky Sall. am na lu ma ci fekkee waaye déedéet yow yaa enregistré booba yaa xam ñëwul foofu police yow tam. maak sama jabar ak Mbaye Ndiaye ak Badara Cissé ñoo fa ne gisuma fa yaa xam. le le 10 décembre 2011 congrès bi. yow yaa ma jël mani la avant ñuy dem congrès bi mani la man maay lire résolution bi fu yaaram yaa xam nekkoon.

mais résolution bi investir Macky Sall man lañ ko jox ñass ñoma nga fa woon lolu euh, man nga Nous ci décret yi ñu signé man la comme ministre conseiller cabinet président Mahmoud Saleh Ndeye Marème Badiane mm-hmm. Mamadou Talla après ak imam mais les premiers décrets ku ci pouvoir ne man bëgguma donc loolu du ma ci tontu ndax nit koo xam ne xawuma la ci parti bi te dégg naa yow nga dévolution monarchie fay waaw ndax bi amul poste loolu la commencé wax loolu la commencé wax di sànni xeer kon tey buy wax day position beneen bi mooy nekkoon chargé communication président xaalis biñ ko doon jox ñu ko jox na expliquer jot na ay millions yu bari ko doon jox pour gérer presse da daan ñëw di ko jël xam naa lu baree baree bari ci loolu kon kooku awma lu ma koy tontu. Hmm. déedéet awma lu may wax ak moom. awma ak moom lu ñuy wax ndax xawma base politique am te élection local yi ñu jëm dina xam ne amul base politique ndax Dakar lay wote. parce que nee na tamit defe dina am Touba yëpp yow yaa koy. waaw mais loolu passé naa Touba Touba du ma ci wax Dakar laa bëgg a nekk maire bi je serai candidat te moom ma nga dëkk plateau moom de du nekk maire plateau moom. moom que est-ce que Macky Sall dina maire de Dakar. man xam nga Macky Sall gisuma ko muy damm loxo kenn ni ko doon nekk candidat bu ko doon def élection bi passé mu def ko te fu ne am nañ fay list y compris bi ma jiitee Touba ay liste yu bokk ci ay moom. Mm. di ay député def nañ ko. man daal listu APR lay défendre gis nga ko toujours col gi may sol day niru APR APR la ci lay dëkk Macky Sall lay jàppale mais bu jàllee nag wut loo xam ne dañ koy jox keneen. du ma bàyyi koo xam ne kii gënuma yey ci parti bi defu ci dara mu koy nekk mu koy jël loolu rek la du leneen mais Macky moom lu mu bëgg ma bàkkoog moom waaw léegi euh, Moustapha euh, da nga waxtaan euh, wax na ya mafia bu am ci wàllu arachide bi ma bëgg ñu dikk ci lu tax nga wax loolu mafia bu am bi après ñu dikk nag nga leeral ñu poñ par poñ ci li nga xam ne moom la la yaa xam mbay jiiñ lu tax nga ne dafa am mafia ci arachide bi yaa xam li mu wax lépp day ci waxul dëgg ab fenkat mais lu tax nga ne mafia bi ba pare ma bala maa wax loolu day fen li mu wax xamu ci dara xamul sax gerte lu muy demee bala maa wax mafia dama koy corriger état mësuma jox ab marché gerte amul marché ak ñebbe ak engrais ak mhm. pas pastèque bi muy wax amul marché man du jënd loolu dama am sama GIE amul njaboot ñuy bay di sàmm mu ne e bi amul suis sëñ Moussa Basirou kay day bu ko je suis man la fenn yi bari na dem bu impôt et domaine bu dana xam am nam man de sama réglementaire ndax day fay patente et c'est reconnu bobu nak bu mom ñun dañuy fait ci ñun 2015 2016 lañ commencé def La première participation 1000 et quelques tonnes lañ am tonnes.

xamuñu ko maa leen ci jëkk 14 ans la nekk président de la chambre de commerce d'industrie d'agriculture am ab GIE dëkk Touba di commerce di jënd gerte di jënd ñebbe am ay magasin sama magasin bi may defee gerte 8 millions 591 laa ko jënd ku dem da nga gis ñuy jënd gerte ka jaay kon bu état boo xam ne ci laa bokk ne dafa bëgg gerte jiw sañ naa ni man am naa gerte wala sañu ma ko loolu laa wax

liñ ma jox bu doon daa ëpp ñi ci des coow mën naa am mais ñooñu liñ ma jox par exemple mille yi ma la tudd boo demoon année boobu ñu def audit bi da nga gis ne ñoom ñenn ñi cinq mille tonnes lañu leen jox ñenn ñi sax sept mille wala leneen engrais it ñi ko fiy def bariwul engrais bi man maa gën a tuuti la lañ ma jox mille tonnes lañ ma joxoon ndax gis naa mu bind ne trois mille tonnes wala quatre mille cinq cent trente et un tonnes semence engrais day fen li mu wax dara du ci dëgg parce que pastèque bi mu wax waxul dëgg ndax man 1000 pots laa jox laa leen jox 1000 pots yi 9 millions lay jar. 3000 tonnes d'engrais jotoo ko. déedéet 3 dañ ni man naa leen ko wutal loolu mooy naa leen ko wutal. Hmm. fi mu toll maa ngi 1000 tonnes yoo xam ne fay naa ko ba pare jënd naa ko. mais mille tonnes laa joxe ci engrais. ñebbe nag jotoo ci 600 600 tonnes ay ca. Euh, mille tonnes waaye da nga il faut nga wax engrais bi. moom xam nga déjà da ngay noter ay fenam nañ dem vérifier ko ndax déjà fen ak sos sosal nit di yàq deram du dëgg mille tonnes lañ ma jox kayit. notification. ni ma na ñu ko wutal. campagne baa ngi jeex mille tonnes laa jox la lañ ma joxagum 2000 joxewuma ko nu mu koy bindee ci yëf yi. ñebe cent tonnes lañ ma joxoon notification joxe naa ko mais dafa am ñu ñu jox kayit ñoom te amuñu ñebe am na koo xam ne 20 tonnes lañ ko joxoon amul ñebe man la joxu kayitam ñaar sax ñu am 20 tonnes ak ku jot 70 tonnes ñooñu maa ko jël dimbali état bi ndax ñebe jooju programme spécial la woon lenn li parce que bi ñu demee ba nawet bi nawet bi sooxi dañ ne nañu wut variété yoo xam ne gaaw naa ñor burkina faso laa jële ji ñebbe ji la ma ciy am lu tuuti la mais du marché damay jaay sama produit buñ ko jëndul woon keneen jënd ko neexaluma leen ci bu dee loolu buñ buñ ma joxati notification mais daak gëwuma ne notification yi dañ koo war a jox benn groupe léegi da nga koo war a laaj yow woo ko ni ko na wax ñaata lañ jox Maodo na ko wax na wax luñ jox il faut mu wax ko Cheikh luñ ko jox ak ñeneen na ko na la na indi liste opérateur économique yi. parce que dégg naa nga ne am na ñoo xam ne sax duñ opérateur économique ñu leen jox affaire engrais. ki am na am na am na ku yoroon 1000 tonnes boo xam ne man la ko doon jaay bërki démb rek wax naa ko assemblée nationale dama ko ni jënduma. ay footballeur ay footballeur sax dégg naa ko ci de. am na am na. ay internationaux yoo xam ne bu ñu seetee audité danañ xam ne jox nañ leen. mais loolu vraiment mafia la. ah man daal loolu laa wax. waxuma leneen wax naa ko mais koo xam ne liggéeyul ci euh, mbay Moustapha waaw lu liggéeyul ci mbay ñu mënu la jox loolu xam ne jaaduwul teguwul ci yoon loolu du bon gouvernance en tout cas ñooñu du li dafa am ñoo xam ne ñi ci gerte gi ñu subventionné ñoom dañ leen ciy jox te amuñu tool xam nga ko am tool yow bàyyi ale boo xasoon ba am tool ni damay bay dëkk ci dëkkub àll mën nañ laa jox mhm. lu tolloog loola ndax dañ koo subventionné mais bu dee doo bay xam ne sa tool mi ngi café de Rome comme ni ma koy wax <laughs> boo paree foofa ngay dem ji fa xaalis bi da ngay woo opérateur bi Cheikh Mbacké loo ni ko woy man am naa dix mais différence bi laa bëgg nga jox ma ko man soxlawuma gerte gi mbaa engrais bi awma fu ma ko suy jox ma noonu looloo ci bari ma loolu tax ma demandé ñu auditer affaire bi xool ñi ñu koy jox mu dem ci ñi nga xam ne ñi wax dëgg yàlla ñoom dañuy des leen tax a mag yu xam ay tool yu gudd yaatu am te duñ leen jox benn doom fekk koo xam dafa làmmiñ yor ci internet bi di dóor ñu jox ko bañ mu wax loolu ça pose problème il faut que ñu auditer ko seet ko ndax président dama bëgg mu am ndam président du yëg loolu xamul nu muy demee moo ku naan président mais président dama ko war éclairer ndax avant may combat boobu wax naa ko ndax man daaw cent tonnes gerte laa joxe mille 1700 gerte gu rafet. Bambey gi maa leen di jox. gars yi opérateurs yi koo ci ni demal mise en place pour jox baykat yi day daw ndax loolu da ngay jënd gerte yóbbu mais buñ ne laa bàyyi aale ñaa ngay jox ci gros producteur da koy jël parce que man nga toog ah bàyyi aale ni ko ah waaye bàyyi aale daal man lii laa la mën a jox xam nga bàyyi aale aw kayit rek lañ ko jox. Mhm. loolu nag seeni xarit lañ koy jox man joxuñu ma ko loolu lay dénoncé lool laa d'accordul ndax benn sàcc amu ci parce que ak état bi danaan soixante-dix mille tonnes jën naa ko subventionné naa ko kuy bay mën naa la cee jox loolu lay wax nit kay wutee nag ay justificatif am ba ni moom baykat la buy fen digganteem ak yàlla waaye man li may waxaat ndax dafa wax loo xam ne accusation te day fen waxul dëgg na ma génneel ben dom buñ ma jox ren bi ñuy joxe nako ko ndax dafa wax ni samay mbo samay mbokk 430 tonnes waxul deug day katch li wax nako ko dara du ci deug je le défie té dama bëgg journalam ñëw bi nga xamné soleil la moomul journal bi dañ koy fay néna journaliste la dafa wara transparent mais warul jël ay journaux ki xaritam di ci publier lu ko neex té nek directeur national amu ci droit gannaaw daa far dafa war a génn ci journal boobu ñu dàq ko moom ndax day nax Macky Sall ndax li muy wax lépp day fen envoyé naa Macky Sall li ma doon def ci ay xaritam yi ko mën a jox ndax copier naa te dinaa la jox not ci loolu man li ma jox état lépp lu leer nañ la nañ audité la ma waxoon parlement CEDEAO laay wax bu dee kay dama ko jox samay mbokk ak samay xarit na wax mbokk ya xarit yi ñan la loolu mooy wax bi mën mel da nga créer benn liste producteur 98 personnes. te ñëpp loo lañ sant loo day kàcc day kàcc na ko génne il n'a qu'à publier ça samay mbokk yow bokkuñu ci dëkk bi ñoom waruñu leen a jox bu ñuy joxe je ne crée pas te lim wax day fenn dama ni loolu ça n'existe pas il n'a qu'à publier ça gannaaw dañu am na na ko publier. nee na yor na ay kayit. mais na ko day fenn kayit yi mu yor mi ngi mel ni kayit yi mu wax ci engrais bi notification lañ koy jox. ñëg ko jox xam naa ko mais li may wax je persiste et signe qu'il day kàcc li mu wax du dëgg. mais lan moo indi loolu yëpp. Ah, xawma ko problème am ndax yoo li mu dugg yoonam nekku ci manoon naa bañ a dégg lii bu dee nag daa nekk ki dealer yu koy monte muy nax président ndax bëgg poste yu gën a kawe ñu ne xam na Macky Sall bu ko mooywul ci biir kàmb gi la jëm ndax gëmul Macky Sall dynastie Faye Sall moo ko créer même biñ ko dakaté commencé won na di génné ba biñ koy jox soleil yenen day wax rek ko gëmul yalla mais amul ñaari nit fi amul ñaari nit ci Dakar mom ñaar ñi gëna wax na arrêté man duma moromam na wuti morom bu bëggé morom. mais tay dafa melni ci digënté dafa ñag lool ak saw gaaw apère yi lu xewul xam nga APR euh, malheureusement li nu dal lu metti muy lan ñetti at lañ xex ñew ci pouvoir. Mhm. gaay yépp defe ne ñoom mën nañ dara am nañu base. te base dañ koy wuti ñuy positionné wu man nag bu ma waree jàppale sama waay damay xeex rag ba dugg bu vocal pour hmm. Macky Sall loolu laa def ci campagne bi wax naa leen ko 327 millions def naa ko ci campagne am 60 quelque. kon am nga xaalis. demal seet samay compte bu ma amee xaalis kay xanaa xaalis bi suuluma ko tey boo waroon compte yi ma am muy ñetti compte benn bi seen CNCA la ci lay liggéey. benn bi CBAO la compte bu yàgg yàgg la benn bi UBA la moom laa ubbi pour assemblée nationale ci lañ may viréel samay salaire boo defee cumul la fa nekk bu matee dix million nga jël lépp may naa la ko xanaa suuluma xaalis bi aw ma compte extérieur aussi te li ma liggéey man CEDEAO rek li ma ci liggéey bi ma ci nekkee léegi. Hmm. ñu fay ma ko légalement boo ko seetee bi ma nekkee vice président ak léegi jege na milliard kon waroon na maa am xaalis huit liggéey naa ci lu mat jege milliard tuuti la manque milliard ndax mandat président parlement bi li ma ci liñ ma ci fay ci yoon ak indemnité mat na 500 millions bële ëpp na 300 millions. kon foofu nga may xaalis. yow boo may laaj loolu nee naa la sama magasin bee 8 millions 500 avant dévaluation laa ko jënd fi may def gerte ci digg xolu Touba kër googu boo ñëwoon jox ma 200 millions du ma la ko jaay mi ngi ci wetu kër sëñ Cheikh Sidi Mokhtar. newuma la bi may dem Amérique ak di jëndi oto di ko jaay oto ku amul xaalis doo ko jënd man oto occasion mais fi may toog di wax ak yow awuma oto bàyyi àll. amoo oto oto assemblée awuma oto. oto yi amoo oto. oto am naa ay oto yu occasion oto bu tolloog sama gaay xam nga gars yi maa suk sa waa jooju di di wax di ma attaqué ci boor bool ay oto y quatre-vingts millions ak cent millions la ñuy war. waa jooju kan la ci. benn waay bu dëkk fii ci Almadi te dëkk Fuuta rek du mu bëgg. <laughs> Farmago waaw oto oto quatre-vingts millions la ñuy war man man est-ce que moom moo ma war a gën a jàll ci sol yor euh, oto quatre-vingts millions man oto bu ndaw bii lay war ñëpp xam nañ ne awma oto j'ai pas de véhicule Macky Sall moo ma abaloon benn oto ci campagne bi sama doom boobu Cheikh moo jëloon xarañ di ko ci yóbbu. Mhm. muy pour mu defal. président oto ba accidenté mi nga fee. oto bu ndaw bii ci la boobu muy 4x4 boobu boobu ma yoroon ba léegi Macky Sall buy mayee oto kay man la war a jëkk a may ndax maa ngi ma daan fanaan ci oto yi buñ gaayam yépp amee ay oto 80 millions 100 millions ami kër yi 1 milliard ndax sama ngóor si ma la wax këram gee boo ko neex 1 milliard du la ko jaay moo ma gën a jàmbara wala moo ma ci gën a yàllu nee na moom ay ay kii lay lay lay lay jot ay ay commission ak ay dóor martu ndax moo benn ministre dañoo dóor

Aïda Mbodj Modou Diagne Fada ak même ka ko wax ndax commission yi am na lu ñu leen di jox parce que ab commission doo tegub secrétaire teg fa président commission mhm. te amul lu muy jënde kayit lu muy doxe leneen président groupe bi di convoquer groupe bi ñuy ñëw war a toog réunion léeg-léeg mu woote Moustapha Diakhaté woote na lu bëri ci ay réunion de mise à niveau ak de formation mhm. te ñun cotiser wuñu xaalis boobu kay ci la ko def kon pourquoi ñu toog ba nëgë ni parce que géré na groupe bi kenn mësul a ŋaaŋ ni Moustapha xaxte ngi def lu dul dëgg tey ñu toog accusé ko ma ni leen leeral leen ko leeral leen ko bu dee daa détourné kay ñun complice la ñu war a doon ndax Mamour Diouf may maay doon deuxième vice président bi mu fii ne tey may premier vice tey bu ay maire ñi ngi demoon maa ngi koy saluer au passage ci clairvoyance bi nga xam ne ndax borom xam-xam la moom lay doxee groupe bi bu coow amee danañu woo waxtaan hmm. maa ko mag tuuti fexe ba ñu bin bin mais il y a des problèmes à améliorer ndax wax naa ko ni Abdourahim Agne dafa nekk koo xam ni man fu ñu tuddee groupe parlementaire sama xel dem ci moom ndax da daan fexe ba. dal am équilibre yi am dal am. kon bu Moustapha Cissé dee alerte bés ci bouton bi. ni ay eh, c'est rouge dañ maa war a woo ñu bokk wax ci mbir mi. après on trouve une solution. alors on va faire une petite pause. Euh... waaw euh, ba tey jii ni ma leen ko waxee tey ki may dalal mooy Mustafa siselo Lo euh, ñu fas ne nag waxtaane Moustapha damay dégg yéen képp ku wax wax joo xam ne nekkul lu ñëpp d' accord rek attaque yi commencé si Mustafa Diakhaté ci yow ak keneen lu tax loolu parti bi dafa mel ni kenn warul am euh, point de vue bay ale hmm. li ma tiim hmm. ki ko bind un grand démocrate ndax le premier président des États-Unis à mhm. deux mandats la si la liberté d'expression nous est enlevée alors muets et silencieux nous pourrons être conduits à l'abattoir comme des brebis mot dit à Amérique 1789 il pensait déjà à la liberté d'expression à 1797 kon ñun bu surtout man ni duma nangu kuma not makki deful dara tay ñi may attaquer ken xamu len won ci politique ñan ñi dañu gaddu won seeni sac di wër afrique di yalwan par 100000 ak 200000 avant ñu koy def sax nak dañ doon njool gaaraasu di sarse auto yi lobat fal wala aéroport bam yag ñu nekk ci benn keuru gaay fi ba yalla dogal Macky Sall falu ñu doon dara jël position di dóor marto ñooñu kon mënuñu nekk suñu référence ñun man dama teel nekk ci politique am un million bi may politique 96 ñaari 4-4 Ousmane Mbeng Djiné Bougane xam na sama xaalis ci la jaar li mu yor ëpp na milliard waxoon naa ko Aïdara Sylla sama xarita oto yi muy andi bi mu koy andi ku ñu ku ku raw dañ laa dañ laa dimbali. sama ñoo bokkoon bureau it assemblée ma respecté ko lool muy liggéeykat nekk député man ma def Amérique jaayi oto jaay ay chaîne torchat jaay gerteeg ñebbe man waxuma ay milliards mais cent millions yu ma mën a takk yoo xam ne maa ko moom mënuma koo am y a des kon du nu mën a yem ndax dañuy wut ñoom xaalis nuñ ko mën a wutee ñun nag danoo bëgg servir sunu réew. ci ay xalaat ci xel mais dañuy jiital sunu liberté bu ñu àndeek ak Baye ba Baye Ali bëgg a weng jaar foo xam ne baaxul dañ naan ko eh Baye Ali yoon woowu ko du ma ci topp loolu mooy problème bi coow li. léegi nag ñooñu nga xam ne ñoom intérêt rek la ñuy wut ak xaalis bu ñu waxee ñu ne ñu eh doomeraam yi nañ génn baadoola yi buñ fi toog loolooy coow li parti bi it amul structure. ndax ku mu neex rek ni man légitime la too coow ya nekk Touba Touba wax ku fa def loo xam ne lii warna ma maa mën a remplacer boobu ba léegi coow laa ngeen di góor ñoo ngi jëm élection locale dana leer ña fa ne buñ mënee gagné dana wóor kon problème bi amul problème man lima gem gëm mooy je suis de l'APR du ma génn la APR ndax ci ñi ko formé laa bokk APR ci ñi ko war a doon laa bokk du ma nangu ku yàq APR Macky Sallit laa àndal Macky Sall aw maa problème mais am problème ci waa parti bi parce que liñ bëgg def tax ñuy complot ki leneen damay lan lañ bëgg def ah, xanaa di xeex nit ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon sànni leen Youssou Touré yaa dégg waxam no mm-hmm. Moustapha Diakhaté dégg nga waxam mm-hmm. Badara Cissé saaga wuñ ko fi ni ko doo fi wax mm-hmm. ah li mu yor teewul ñu ni ko doo wax te ci ñu sosoon parti bi les les premier cadres du parti la bokkoon Mahmoud Saleh mënta régler dara fa mu ne mbay Ndiaye lu muy régler wax ma ko ban Ndeye Marème Badiane lan lay régler Abdou Mbow vice président la woon génne nañ ko teg Awa Gueye la même chose te ñooñu ñooy parti bi waxuma nag Luc Sarr ñoom ak kii ñeneen ak ñeneen jën farba barki dem lañ ko dàq ba delloo si ko te ñooñu ñoo accompagné woon président ba aksi fi ñu agsi nan waxante dëgg ñeneen ñi ci yori position xam ne ñi ngi góorgóorlu mooy Ablaye Daouda Diallo man nga ko reconnaître ci ñi nga xam ne bu ñuy wax ku légitime ndax ku teel a ànd ak président la. Mmh, ba muy metti ba muy metti moom itam ñu punir ko ci ay jamono wax ma keneen wax ma léegi keneen kan koo xam ni ki xam nga ko kon kay problème bi mooy ñun ñi fi jëkk dañ ni ku ci wax nañ la duma ñeneen ñi saaga woon Macky Sall tey ñoo yor poste yi poste yi baax ñoom lañ ko jox loolu rek laa wax. mais loolu Macky mooy fu mooy responsable moo leen tànn. mais nag loolu it da nga koy alerte ni ko bu mu jëm ci yoon woowu bo yoon woowu. Ah, yoon bi ko dugg na ci ba pare. ah déedéet da ciy génn mën na cee génn ndax ñun du ñu bàyyi APR lañ duñ dem ci beneen parti man de bu ma dàqul APR lay dee <laughs> man. mais dégg naa ñu ngi koy waxtaanee ci suuf. dàq la waaw maa ngi leen maa ngi dégg waxtaan boobu. ba Allé man gëw ma loolu waxul kenn damay dàq si selo dégg naa nee na nee na trop c'est trop. barke Cheikh Ahmadou Bamba Macky Sall man na maa mere de. Mhm. man na maa wax loo xam ne d'accordu ci mais yëndoowul benn yoon danaa dàq. Macky Moustapha Cissé soxna Marème Faye Sall tudde naa ko doom wax naa ko assemblée. Mhm. deux ans la am xalaatul ñu naan ko Cissé Lo dañ koy dàq moom kay bu ñu amee yar bu ñuy dóor boo xam ne dañ ma koy naan bàcc ma ko ndànk man nañ ko bàcc comme ni ñuy def di ma kii waaye nag. yónnee ay gars yu sëkkatal waaw mooy bàcc ma rek yar bi ni ma njoos. <laughs> eh, eh. waaye dàq ma moom xalaatuñ ko. duñ ko def Macky Sall. mais candidat nga Dakar si loolu dina yomb. xam nga bàyyi yow. bu ma doon wut lu yomb kay damay toog rek nekk sama vice président ak parlement CDAO e e liñ may jox mais Dakar dafa compliqué la bëgg wax. wa waxuma loolu xam nga dama ni la cumulu salaire yi may yor. Mhm. ak avantage bu ma euh, chambre de euh, commerce ak li ma yor parlement CDAO e ak assemblée nationale day mat 8 millions par mois. xam nga kon li may wax bu doon bu doon gëwuma ko dama naan naa toog rek lekk sama kii bu loo bu gaa yi kéema kii mais gëwuma loolu te dama la ni damaa fab sama près de quatre cent millions def ko ci yëf yi ba yoruma dërëm kon li may wax conviction moo tax ma koy wax loolu laa bëgg ñu d'accord ci léegi nag mairie Dakar damaa dëkk Dakar Baye Ali. na ko jóge Touba ñëw dëkk Dakar. mais fii laa dëkk kër a tax nit ñi fi dëkk ñi fi nekk wax ma Pape Diop fu mu jóge woon Kaolack. nekkul maire Dakar Khalifa la ma nga dëkk booru kër Momar Sarr fii lébu yi rekk fi dëkk te xam naa fi kër nee naa la kër gi ma dëkk kay quatre-vingt et quelques millions quatre-vingt-cinq xaw ma quatre-vingt laa ko jëndee maa ko moom yoof la ne kon kay sañ naa ni waa yoof dénk leen ma maire bi boo ngeen ma ko dénkee ma jéem a góor pour def euh, lu gën sa seen doom yi fi nekkoon yor. Abdoulaye Diouf Sarr. non kooku sama rakka gis nga. am Abdoulaye euh, dama lay wax ni c'est mon jeune bu dee dëgg rek laay wax. Mm-hmm. te it respecté na ma trop ça je le dis maa ngi moom it am nañu compagnonnage bu yàgg mais ci ni ñuy doxee ñoom ci maire bi d'accorduma ci moo tax ma bëgg a jël yëf yi. Amadou Amadou Ba bu bëggee nag te sa xarit la. Amadou waxaguma ne bëgg na sama diggante tek sama travail ba mu c'est mon ami intime wax naa ko Amadou euh, jàpp naa ne. mais mi ngi daas de. waaw mais may ma barke sëñ Touba waxaguma ko te dama koy gis. mais amadu moom lu mu bëgg dox ko ci man jàpp naa ne lu dul li ma yor xam ne moom moom laay teddee muy post bu ma yor te awma lu ko tane moom man naa ko jox. <laughs> waaye waxaguma loolu. léegi sa mandat ci parlement bi léegi mu jeex euh, tey jii bu ñuy xayma sa liggéey foofu loo fa def Moustapha. Euh, Baye Ali maa ngi lay sant te d'ailleurs def naa ne loolu moo waroon nekk débat ndax man li ma doon seenu Macky Sall bi ma jàppale jabaram jàppale ma. bu baax parti bi jàppale ma ba ñu jox ma parlement CDAO ñenn ñi naan Cissé Lo niveau intellectuel am yoru ko man nab nabee nab nabi ba yor ko génn ci maa ngi fii yëf yaa ngi koy dox fii lay coacher affaire bi suba président commission bi ci lay présenter rapport boo xam ne suivi de débat sur l'état de la communauté deuxième kii bi bu paree le 12 la demandé pour ñu andi budget communauté bi consolider d'investissement bi lañ voté pour institution 12 à 13. Je koy président ndax le 11 lay dellu. ma redressement spectaculaire laa def ndax dama fekkoon ñu yàq xaalis bi lépp ma contrôler ko. fexe ba programme ma député di dem ay mission war di mosal muy ay jot ñi am indemnité de responsabilité am tardement. ma fexe ba diplomatie parlementaire bi ñëpp xam marocain yi maay seen idole fi mu ne maa ngi fa jóge semaine bi danaa dellu le 30 bu ma ñëwee dañ may escorter jox ma hôtel yi gën a rafet naan ma yow la ñu yaakaar ci intégration loolu wax naa ko président mais bu dee dem naa nag ba fexe ba ñu xam fépp ne parlement CEDEAO am na te loolu amul woon ñi ma jiitu mënuñu ko woon ma fexe ba acte additionnel bi ñu adopté ko. mais def naa lu rëy ba livre bi ñu ngi koy bind seen collègue Pape Amadou Fall dama ko boole ci ñi ma jël. pour mhm. comité de rédaction bi. envoyé na ma léegi ndax deux tomes lay doon te ñi koy bind ci parlement bi la ñu liggéeyee te dañ ko fekki ndax dikkoo amoon koo xam ne kii premier président la fa nekkaloon assistant la ci ñi bokk ci comité de rédaction bi la te ki fa nekkoon. di ab malien di professeur agrégé Ali Diallo def témoignage ci li ma def te moo fa je dañ avant muy un an bi muy dañ renversé. Mhm. man nag bu man bu ñu groupe linguistique yépp yi ma yi defal motion. de félicitation. pas def ko Sénégal def nañ ko ba envoyé ko Macky wax nañ ne li ma liggéey rëy na loolu moo war a doy nit ñi ma defe noonu dañ may takkal xàpp gi nag commandeur de l'ordre national du mérite ou de Lion. bu Sénégal waaw. Ah, Sénégal laa ko defal Pape Ali. Mhm. yow journaliste boo taseel ci àddina bi dañ naan la ah ton président laa day xanaa moom génie la loolu lañ ma teg. Mhm. tey auditeur général des institutions xam ne ñooy càmbar liggéey bi bi ma ko recevoir daf ma ne bu doon texte yi maye na nga représenté wu à l'unanimité lañ lay fal té looloy dëgg mais nak dama sonn bëgg a ñibbisi wax naa ko léegi institution supranationale yi bëggatuma ci ne danaa gungé goné yi dal ñu installer leen ba ñu am ay poste de responsabilité ma rocc sama loxo xol ba xam ñom buñ doxalé ndax dinañ def ndax déedéet déedéet danañ mën a kay li ñaan moy ñu maintenir mënuñu ko ils peuvent pas parce que loolu euh, don la chambre de commerce bi ma yor sama budget daw 60 millions matu ko woon xam nga ñaata ci la gérer at bi. Hmm. te def lepp li ma def. moins de 20 millions bi at mi jexé dese 40 millions dama lay wax ko xamni boko won Mamadou Cissé ancien hmm. député te nek président chambre de commerce bu Kédougou hmm. damay wax ak mom mu c'est parce que yow sa xaalis nga ci dugal moom te wax na parce que man non lay gérer pour mu bax jaral na ma fab sama àll barki démb yow xam nga ne fab na sama 10 millions wax naa ko léegi ben député à une soirée dañuy waxtaan léegi ci biir salle ma ko Alioune yeen da ngeen fab sen 10 millions di def joxe ay prison pour ñu am jàmm ak sedd liquide kon nañ arrêté débat yoy man xaliss ñoruma quoi wutuma ko xam nga lu wut luma bëgg a faj mu faju loolu yalla am un milliard buma amé amee soxla faj ko danañ ko def moy sama tiant gi préparé wu ma dara le 28 décembre la. nag yaag ceeb baag yàpp wa wax naa ko xalif bi ñaari fan yooyu yépp xel koom ak kër sëñ bi nee naa xalif général bu kenn togg dara ajjuma le 27 ak gaaw nañ arrêté ndax nit ki bu yoree ngërëm da ngeen di xam ni ngërëm la yor man lu ñu ma jox rek réew mais bu ma ko président joxoon ci ngay xam ne bàyyale maa graw lépp danaan cocc jaar ci yoon wi damaa graw <laughs> Eh, Moustapha waxtaan ak yow dafay leex trop eh, du la laajaat ci walu drogue bi parce que loolu moom wax. non jaru ko nga ne procureur bu la woon nga nga. nga leeral ko ay piste laa koy. Ah, jox piste rek mu leer ah, parce que nag yaa ngi CEDEAO xam nga lu bari kon maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ñëw bi nga ñëwoon tey jii nga kaddu gu mujj gi nga tàggatoo. man kay dama lay sant di feddali suma kóllëre ak yow. Mhm. parce que xam nga man lu ma bëgg. Mhm. même dafa am léegi ku ma laaj Alioune Souaré dama koy tooñ daf ma ni. mais yow 2011 2010 fi da ko doon xeex ak Doudou Wade te léegi yow lu wax nga ni Doudou Wade mané ko dañoo dépassé lolu man awuma xolu aigri Doudou Wade reconnaître na samay compétence ak lima man même avant ñuy xeex rakam la mais bimu lu bi groupe parlementaire daf ma doon consulter mosunoo réro ci groupe bi bi nu réro moy bi ñu bëggee Macky Sall kon nak sama maga te il fait partie de mes premiers conseillers limay may def parlement CEDEAO dem na fa te yow xam nga ne Doudou Wade c'est un parlementaire émérite moom daa waroon dëkk ci parlement bi daf ko xam moo tax ma koy laaj xalaat ndax man li may yor Sénégal laa ko yoroon bi ñu may fal fii Fada Diagne moo yoroon groupe parlementaire bu opposition mais moom Moustapha Diakhaté ñoo waxtaan ak député yépp ñu bind signé Moustapha Niass validé président recevoir ñu ñu ni benn candidat la ñu am booba Lamine Thiam a ngi ci te si c'est loolu ñoom ñëpp ñu nangu ko gone yooyu kon maa ngi leen di sant te bis a tey xam nga lu ñu ma wax suñu réunion. doo dem léegi moom daal bàyyil ba ñu insta dama leen bëggumaa fanaan Nigéria barki Cheikh Al Khadim Macky Sall dama koy wax ni ko bu bëggee député ji ma may ko ko suur naa ci député ak i vice président billahi bu ma koy ñaan rek may démissionné defi leneen moom bu bëggee ma sàmmal ko ay ganaar ak i xar sax man naa ko ndax li ma bëggoon benn bëgg laa bëggoon bi ñuy dem présidentielle mooy Macky Sall na gagné au premier tour man loolu laa gëmoon yàlla def na ko troisième bi rek du ko laal ah man waxu ma man mënumaa wax ci loolu ndax euh, bàyyaale dafay xaw a nekk loo xam ne du rafet bu dee yàlla dañoo bokk ñun Macky Sall lañu àndal mooy sunu candidat mm-hmm. am na luñ dul jubóog moom mais moom lañu àndal mooy sunu kilifa ci politique am na loo xam ne jubóowuma ceeg moom mu ngi koy def d' accorduma bu ma consulter dama naan ko bu ko def loolu rek laa ko lay sikkanteeg moom mais awuma lu ma koy laaj ndax teral na ma moom li ma war a defal ci teraanga defal na ma ko muy xaalis bu may jox bu ma ko soxlaa fu ma ko laajee xaalis dana ma dimbali lam man soxnaam saalika na ko noonu kon loolu méréwu ma leen ci te jox na ma poste de responsabilité kon sant naa ko ci waaye nag nopp bi moom bu ko tëjee li ma la wax di déglu ñoo xam ne ñi seen intérêt personnel la